fas yéenee ñëw tey ci wane ku baax ci niñ ko baaxoo di def ci ñu bari kenn ngi kok buñ ko tuddee ñu bari dañ ko xam bari na ñooñ nag dañ koy séen nii rek waaye ñi ko xam-xam nañ kuy woy juram sëriñ Abdou Khader Mbacké sëriñ Abdou Khader sëriñ Touba. way juróom sëriñ Abdou ba mu la sëñ Lamine Diop way nee na bes bis ba mu ganee àdduna moom fële ñu naan daarul alim moom la wolof yey wooyee ndam Cheikh Abdourahmane ma ngi fa woon muy ñetti fan ciw tam xarit mhm. sëriñ bu mag bi ne bërët mhm. nee nañ ma wol sama xarit am naa fi gan gu doy kéemaan Mm-hmm. nañ ma wool cerno mu ñëw mm-hmm. ma wax ko lool mësula xew mm-hmm. fenn fudul fii cerno ñëw lii la ko yónni daal di ñaan lu mu wax la nga la wax maam gan gi sa yoon wi na gudd mooy yaatal ko ngir loo dajel duñ ko tudd yowmal xiyaam du gis safaan ku gane àddunay ràmm ku gane àdduna di ràmm waxtu wu màggee di ràmm ñu di ràmm ñu ba la kan la abdou bàcc bàll kenn ci njabootam nag ginnaaw bu ñu ziyaara xalifa bi sëriñ Cheikh ak njaboot gi yëpp. Mhm. Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khader. sa ñu ngi koy ziar. mi yor kàddu yoonu murit mhm. li yor nag du lu ndaw. ñi ko ko joxit duñ ñu ndaw. ka ko ko njëkk ràngal mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadal. balay sa. sëriñ Sidi Maxtaar Mbàkke ñëw feddali ko mhm. def naa la samay tànk mhm. def naa la samay bët mhm. def naa la samay loxo kon mooy yaay man man maay yow ca dëgg-dëgg sëriñ Muntaxa Mbàkke ñëw feddali ko te kenn ku nekk te kenn ku nekk xam nga ci ñu kenn ku ne daraja jam am ci yàlla loolu kenn naa ko ku toll ni xalif général des mourides doy loola ne la Ya may waxal yor sama kaddu nga yor kaddu yoon wépp ak fi at yi toll kon am na lu ci laxasu loolu mbir la serigne Basiiru mbake mom serigne abdou khader bari na ñooñ dañ koy seen ni ni diko jaawale ak li ñuy wax njunux xam nga njunux njunux bay samba boy daw ci tali yor auto wala ngay dox ak sa tank tali bi boo xoolee ba fa sëbët yam di nga gis lu mel ni mu ndox ci kaw tali bi <laughs> lu garaaw laa lay wax di gis lu mel ni mu ndox. Mhm. moom la sëñ Fallou Cissé ne gënul njuru gënul njunux mi nuru ndox ku mar ba seen ko fëx mën na daw ba xëx fekk mu di nax. waa ji doo fekk dara. ñu bari nag distance bi lañ ko séenee nii moo tax léeg-léeg ñenn ñi génn ci internet beeg yenn du ko baatal waaye doo dégg mu tontu. dara jam ci sëñ tubaa ëpp na loolu te la woy juróom sëñ Abdou Lahad Mbacke daa am lu ma nee na nit ku ne jëfa ma koy taxa a tiit nit ku ne jëfa ma koy teggi Baye Samba sëñ Abdou Lahad moo ne nit ku koy tax a ku ne jëfa koy teggi dëgg la comme mi ngi ci liggéeyal sëñ Touba mhm. warut tiit dara mu am nag mhm. loolu bu ma ci jubloo wax mooy ñi nga xam ne léeg-léeg dañ koy séen te jaxasoo jaxasoowuñu ak moom wala jaxasoowuñu ak ku jaxasoo ak moom man nag li may wax yàllaa tax ma di ko wax. loolu mooy ñàkk koo xam. waaye nag jaxasoo naa ak ñu jaxasoo ak moom. ay ca. te gis naa déglu naay waxam gis naay jëfam. Hmm. waaw moo tax léeg-léeg ñi ko sori wala ñu sori ku ko jege ñooy wax lu ñu xamul ci moom. mooy ñi rek waaye ñi ko xamul. ñi ko xamul rek. waaye ku ko xam xam ne. Mm-hmm. Sëñ Tuubaa rek lay dund. sëriñ Basiiru Mbàkke Abdu Xaadir mhm. ku ko xam-xam ne ku fonk téere borom bi subhaanahu wa taala la muy alxuraan li jamono di xat xat xat xat ci moom hmm. ak diggante bii mu toll bu eh. xëy te jàngul ñaar fukki isi bi alxuraan est-ce ma ngi ca toolu wa ngi ca toolub way juróom hmm. nekk ci toolub maamam ja Basiiru Mbàkke moom sëriñ abdu Khadir kuy dund sëñ Touba nit la koo xam ne it du defal <coughs> kon mi ngoog du defal kenn dara ngir dara lu du dàkk ca yàlla ndax wax ji ñuy wax ñi ngi ci yéenee dolli ñi xamoon waaye ñi ngi ci yéenee xamal ñi xamutoon mm-hmm. sëñ Bass Abdou Khadir lu mbooloo bari bari bari donte téeméeri nit la ku ne di ko wax soxlaam du xeebal kenn soxlaam te ku ñëw di ko wax soxlaam dana la déglu te bu ko neexoon moo ne jamono xat na ci man waaye xatalul kenn nit ku tabale it nag tabe gi li koy firndeel bërki démb la mujj yëkkati oto bu mucc ayib jagleel ko sañ Abdou Samad mu sëñ Chouaïbou hmm. moom mi ko joxe yàgg na koo joxe mom mi ko joxe war na ko joxe waye kim ko joxit yag na ko joxe waye def na lu bax ndax bari nañu ko man te defuñu kon mom mi ko man def ko dañ ne nit su defé lim wara def mot la sante ñu ne aha kay mat naa ndax amna kum waron te defu ko kum waron ni mom te defu ndax da ngay deg ñu ne ku manul bawoo lu yàqu yawa ah. ñu ne ah mané aha kay d'accord na waye ki mante defut seetaan ñi manut di def ba yàq mom ci la. <laughs> est-ce que du mom sax. <laughs> waaw est-ce que du mom seetaanut lolu doo ko dégg muy tontu ci lenn lu luñ ko wax lo ndigal rek lay ndigal rek. da den miri bopam lu ko waye mëna wax ci internet bek fu ne. da koy dënd mom du tontu yoyu du tontu. nekku ci loolu nag mooy ak mat. Mhm. li ma gën a neex ci moom mooy nite gi. sëñ Fallou Cissé nag nee woon na nit nat ak niit ku judd doon nit nit nga ñaari nit jur la nit nga waaye nite nite nag nat ak niit ràññee ëpp ak cat ngir taamu li mat sëkk. waxi sëñ Fallou ngoog. mat gu mu mat ci liñ koy doye mm. moo tax ñu doyloo ko te defu ci lenn lu doye di. musu ko cee wax mosu ko cee jëf. la. nit la koo xam ne it. Mhm. li muy li nga gis ñi nga gis ñu naan sëñ basa leen dimbale ci kaw wallaay ñi muy dimbale ci suufu ko ëpp te bu sañoon kenn du ko yëg li nit ñi di bari bari bari kenn ku ne ak lam séq ak yow bu yëkkati woon teraanga di ko jox nit. bu sañoon loxob càmmoñ bi du gis li banqué ci loxob ndeyjoor bi loolu jikko ju kawe la am na ñooñ balaa ñoo mën a teralaate mhm. caméra yi tiim leen wala waxkat yi dar leen waaye loolu dalu ko ñu fas yéene fësal li ñuy def mukk waaw beneen bi ci topp mooy am na ñooñ léeg-léeg kuñ mere nga xam ko ci ñoom waaye man sëñ Basiiru Mbàkke moom sëñ Abdou Xaadir mu mer baa du lu ngee gis bëriwut a gis te loolu yombut déedéet maslaaxa ak koo xam ne jikkoom neexu la donte jikkoom neexu la nga maslaaxa loolu loolu gën a jafe loolu yombut loolu gën a jafe luy jafe loolu loolu gën a jafe yow ku mën a maslaa la ku nite porte bi mu fi fi mu toog nii. Hmm. ku nitewul mënoo fee toog. déedéet eh, yow tamit. <laughs> ah loolu xam nga xam nga ko. waaw loolu moom euh, lu waay dégg lu waay gàtt dégg-dégg xam na loolu. waaw ku nitewul mënoo fi toog ndax faw nga ràññee xàmmee te loolu ak nitee koy maye. moo tax kon ku mat a ñaanal la nit ku yiw la nit ku baax la yàlla dimbale na ko bokk na fu baax. waaye bi mu bokkee fu baax ba noppi it fexe na ba baax mhm. yamut ci maay doomi diw ji rek ndax dégg nga ma mhm. waaye fexe na bay diw fexe ne bay sëñ ba Abdou Khadre bi waaw tey nag deesu ko gis mukk di xeeb yoonu murit di ko jaaree ci moom kum neex nag mën ngaa toog ci sa ruq wax la la neex waaye ku jaxasoog ku ku kuy wax ci moom yenn yi ba ak moom nit ñi nag ñoo tàmm kuñ jaxasoo wut ak yow di la jaxase mooy di la santaas ak di la wax yenn yi ngir bëgg a jaxasoo ak yow loolu baaxul mbokk yi buñ gisee lu baax dañ koy wama shahidna illa bi waalimna nit ñi muy teral nit ñi muy teral bu tegoon aw ah, li gaañi naan li communicateurs yi naan diw bu tegoon aw nag fii ne ku musul lekk sama teraanga ku mas lekk sama teraanga bu laal nag wi nag wi mën naa fanaan bit waaye moom bu ko neexoon mën na ko wax te loolu bu ko xasee ba def ba pare jeex na gisu ci dara lu dul sëñ Touba looloo ma ci gën a neex maanaam jëf dara ba pare gisoo ci dara lu dul jëf li ngay jëf ba pare te gisoo ci dara lu may liñ koy doyee bu ci wane woon genn doye di ah kon duñ ko dolli dolliwaat ko. ak kii wàcc te keneen. waaw waaye doy gum ci doy doy loo nag sëñ Touba xam nga gëm sëñ Touba bëgg ko lépp mën naa ne waaye doyloo ko. daa jafe. daa jafe tey loolu mooy affaire bi nag doyloo sëñ Touba. mooy mbir mi fi la sew sew bi ne. waaw foofu nag àgg fa dafa jafe ne ku la ëppale ci sëñ bi rek. dala cee gën a doylu daa laa gën a doyloo ci sëñ Touba. dafa doyloo sëñ bi. waaw dafa doyloo sëñ Touba. bëgg ko wóolu ko waaye nag. doyloo ga moo desoon. doyloo gi. Mm. dafa doyloo sëñ njabootu sëñ tubaa gi. ku ñuy tudd di tudd sëñ Touba yamalewul ak dara. te loolu mooy li am solo mag ñi noonu lañu fi nekkee woon. moy tax yegg fañ yegg. kon sëñ basirou Mbàkke abdou khadir mu hmm nit ku am ay qualité la. damay faral di wax ne nak ñent jikko yi may nawé nit gis na ko ci mom ban ban bëgg touba hmm yegg nit. Mhm. du yegg nit té day yegal nitam. ku am respect la ci doomu adam té lolu mo am solo. moy lepp dafa wekk nit. sëñ Bas. wegeel ci la ne. ah waaw <laughs> ak am solo weg ak wegel hmm. <laughs> eh, bàyyi sàmba wegel am na solo mooy lépp waaw sëñ Bass ku wekk nit la mooy tax saa yu ne rek fañ koy séen hmm? mooy tax saa yu ne fañ koy séen waaw hmm. moo tax nag toujours nag nañuy séentu ci moom yokkute li feeg mi ngi fii yokkute rek incha allah kon yàlla yàlla dolli ko jàmm. amiin defal ko tawféex. amiin defal ko ndimbal. amin defal ko sutura. amiin beneen yoon danañ ci ñëwaat. incha allahu rabbi. waaye nit ku baax la de. <laughs> loolu kenn kenn dootu ko naatable ci yoon wi. tëjal <laughs>